dal leen ak jàmm mbokk internet yi góor jigéen bu mag bi di wuyoo ci turu Pape Mbaye ñu gën ko xam ci mbayee noppeegul ba léegi li mu waxati bile yoon te teg ko ci derub animateur boobu la di Ndoye Bane moo jaaxal ñëpp chetëtëtëtë bile góor jigéen amee réew mi fatt réseaux yi nekk ci diw wax rek jamono ji nag ki mu bëgg a lakkal dëgg-dëgg mooy Ndoye li koy firndeel di ay kaddu yu mu yëkkati teg ko ci derub animateur bi yekk ko lu ne dem na sax bay wax ne moom moomu lee di ndoy Bane tur yi ñu ko daan woowee mooy sumpu wala sax boroom gàmb yi ab mbaay wala sax mbaayee mi ngi ñuy xamal ne loolu lee mu wax dëgg-dëgg deg ko ci derub animateur bi de Ndoye Bane nee na ab règlement de compte la maanaam ab fayantoo la boo xamante ne mu ngi koy def Ndoye Bane waaw waaw xuloo bu saf sàpp ab defante ndax mu ngi xamal ci ay kàddooma ne moom ak Ndoye Bane xamante nañu bu baax a baax Ndoye Bane yàgg na ko woo di sàkku ci moom ngir mu jox ko lenn ci ay turu autorité sénégalais yi nga xamante dañoo bokk ci góor jigéen yi waaye moom Pape Mbaye wala Mbayee dafa lànk ba tëdd ca na kanamam waaye ba tey yemul foofu de moom góor jigéen bii di Mbaye nee na Ndoye Bane ci boppam yàgg na frekante fréquenté homosexuel yu mag yi nekk ci dëkk bi i waa Mbaye lu muy wax ni waaw nee na animateur bii di ndoybaan yàgg naa fréquenté góor jigéenu dëkk bi li koy firndeel mooy moom animateur boobu lee yàggoon na dëgg-dëgg di dem ci restaurant baar boobu ñuy wax chez Iba ak beneen bu ñuy woowee chez Ancho nekk ñaari restaurant baar yu mag yu mag yu ñu ràññee te xam ne ab la ci góor ñi Mbaye teg na ca ne Ndoye Bane sax daf daan naan sàngara ànd ak loolu sax di jëfandikoo drogue ànd ak loolu góor jigéen ba def yëfi jigéen na xas ko ba mu rab te naan ko dafa ñaw te xasaw dem na sax bay wax ne li ko jaaxal mooy Marie Bane soxna Ndoye Bane bi naka lay def ba mën a supporter kii di boroom këram kàdd bu ñaaw bu ne teg na ko ci derab animateur bi de Ndoye Bane nee na sax dafa samp ab laaj xanaa mari Bane su guddee booy jotee ak Ndoye Bane ngege naay ngay muur sa kanam ngi jégalu ci nga doy waar waa mari baana xanaa da fay lamp yi su ndooy baan summee xanaa xamul ne ki muy waxal kilifa la ay bu ndooy baan déggee jërë ngeen jëf nga xale jigéen ñi dañoo bëgg jëkkëru góor jigéen ay waay mari baan mari maa la yërëm ay waay mari baan eh est-ce que xam nga bu yombal xiyaamee am na xale jigéen yu bari yoo xam ne bu ñu deewee yàlla du leen isaab da leen di dugal àjjana direct ndax am na yenn góor yoo xam ne ku mën a supporter muñ ko di sëy ñoom tabar fakal la macha allah di bokk ak ñoom benn lal directement. directement ak jën a nga jëm ndax mari baan ku mën a xool ku mel ni ndooy baan ay lexi kanamu ndooy baan gémminu ndooy mel ni natutu mel ni tol mel ni màdd forox xiñ xunn mu mel ni mois de février ne tell ni ippopotaan mari baan nga ni noonu ah, dangaa jongama di sëyeg ndoy baan mu xasaw xunn xeeñ tilim forox nee na noonu man moomu nag la am lu ma guuxal ndooy li nga ma guuxal danga koy leeral ci xalaas bi xalaas bi leer dangay taxaw xalaas nga ni Pape mbaay laa bëgg mu wax nangam ak nangam xalaas bi leer man lu may wax day leer tey boo taxawee nga ni senegal dafa bari ay góor jigéen jigéen ñi dañoo bëgg di sëy góor jigéen mari baana sëy góor jigéen numéro un mari baana sëy góor jigéen numéro un xam nga li ma naan nit ñi dañoo naafiq tey ñi ngay gis ñu toog ci tele bi yëpp ak ci rajo yi di yore nit ñi ni yore jàll ca Fuuta naan góor jigéen yi yéen coow ngeen góor jigéen yéen yéen bu njëkkoon xam nga senegal bu njëkkoon nit ñi xamuñu lan mooy góor jigéen Sénégal bu njëkkoon bu ñu gisee góor jigéen ci ngénte la ñu jëm a xew waaye yéen léegi jarul ñu naan tubaab yee findi góor jigéen yéen a promouvoir góor jigéen ba àddina bépp léegi Sénégal xàmmeetoo góor xàmmeetoo jigéen bu njëkkoon dañ daan peew léegi fiso la ñuy sol def o ak body rocc seeni tuñ lépp lèvre xeesal ba mel ni tabar fakkan la Adja Diallo mannequin karan seeni bopp def ko deux peñ xam nga lu tax yéen a coow góor jigéen yi ba xale yépp xam nañ ni ah ñaari góor dañoo war a sëy nañu essayé ji ah ñaari jigéen dañoo war a sëy nañu essayé ji am góor jigéeni bëccëg am góor jigéeni suba am góor jigéeni ngoon te kat góor jigéeni ñooy coow góor jigéeni waaw góor jigéen yooyu coow góor jigéen yi man nag dinga nga ŋaañ ne nii newaan nii ma ne puccax la la ajaa diggéen si meer waxoon ndax ba ajaa diggéen dem si yàlla si di dund dangaa yëkkati sa téléphone woo ma allo saa waa ji booba maa ngi tudd Stéphanie ma ne waa nga ni ma yaa ngi def buzz waaye yaa ngi toj Sénégal ci yow laa njëkk a déggee turu buzz ma ne xew nga ni ma Sénégal gépp yow la ñuy wër yaa baax ci ñoom mbaaye yaa baax ci ñoom saa waa ji xola yaa baax ci Sénégal damaa bëgg nga leen koy sabañ damaa bëgg nga leen di nàngam dama a bëgg nag leen li tax ma woo dafa am benn émission bu ñuy def di wax ci góor jigéen yi mais dama bëggoon nga jox ma ay tur ak ñoo xam ma ne la eh, stop booba yaa dégg nañu toog yàlla na xippee aljana ma ni la ndooy stop man bi nga ma dalee xam ba tey man Pape mbaay danga ma mës xam ci lu ñaaw ak wax lu ñaaw ma ne la ndooy danga ma mës a xam ci wax lu ñaaw ak di jeebaane waate ak di lijjanti problème mu jàmbur mësuma ko def tey laa ko def te yow yaa ma ci woo yaa woo naar ci buuxante ndooy man la ndooy man kuy góor jigéen ak kuy caga kuy nooxóor kuy jinne kuy dëmm kuy rab sama yoon newu ci xam nga lu ma lijjanti sama bopp ndax bu yoon man xiyaamee du ma tal kenn sama bopp laay tal loolu alxuraan ko wax bu yomal xiyaam yi kenn du tal kenn sa bopp ngay tal nga ne ma mais damaa bëgg nga jox ma ay tuuti tur ma ne la ndooy tey su ma doon joxe ay tur yow moomu yaa ci njëkk ndax yaa jóge Pire ñëw dëkk Derklé di ñëw Cheikh Iba yow ndooy baan Seydi Mari Baan dama bëgg nga déglu bu baax la ma lay wax leçon laay di ñëw Cheikh Iba man lu may wax day leer di ànd ak Modou Fall sama xarit di ànd ak waaw di ànd ak sama xarit bu ñu naan Emma dëkk Derklé ginnaaw salon Fass Seydi di ànd ak ay Aïcha ci yooyu nga daan dox fu góor jigéen ñi Moussa Lang programme Moussa Mbaboor Cheikh Iba ndooy yaa ko dirigé yow ñi la xam xam nañ ni léegi nga commencé di wax ci rajo yi yow xam nga ci loo daan dox fan la góor jigéen ñi lànge nga tudde sa bopp sump sump bu gàtt bu weex ba ne noonu piir nga jóge yaay boroom ñàmb ji boo ñëwaat ñu naan kii mooy sump mooy borom ñaam yi man leen bu mu jegee table ji nga naan sama waa ji xàmmeewoo ma ne ko xàmmee naa la mu naan ma maay sump maay borom ñaam yi man la borom ñaam beeg borom karoot borom naweeg borom suppemee ci yam ne boo desoon yow dong ñëpp saw làbbee ngay ñëw di fréquenté góor ji génne ca say ibaax baax bu ñu tegee bitéeli nga naan ci sàngara si tux ci yàmbaa gi tux ci cigarette gi di wër nag fu caga am ci Sénégal yaa koy fu caga am ci Sénégal yaa ko daan génne fu góor jigéen am ci Sénégal yaa ko xam daan làngam moom di ambiance ak ñoom di mbaboor ak ñoom ñuy say xarit tey noonu nga ni dangaa taxaw buntu kër yaay Youssou Ndour jàkkaarloog wal fajiri laaw la cat di fa lekk boolu dof ba dugg fa commencé di animé noonu ñu teg la xalaas nga ni mbaaye laay jàkkaar lool tey man mbaaye mii la la dëggeen simeer waxoon ne la ndooy bàyyil paap paap li ma neex ci moom jikko dafa am jikko boo xam ne dafa maa neex ci moom keroog ba ñu ko jàppee fii dig jàpp ko keroog ba ma digg jàppee Adja dégg na la wax loolu keroog da ngeen ma waa téléphone def ko expliquer Adja dégg ne la li ma li la Pape wax dëgg la parce que da ma ne woon tuddal ma kilifa yi nekk góor jigéen Sénégal man la Ndoye Bane su may tudd góor jigéeni Sénégal su may tudd kilifa góor jigéeni Sénégal yaay jiitu nga ne ma saa waa ji bul wax loolu nga ne ma ah xam nga ma de nga ne ma waa kon garaawal amul problème xaaral ma paas la Adja Dégène jël téléphone bi. waaw Adja diggan si meer jël téléphone bi daa di ree daan dem ay waaye sama doom ji yaa baax ci ndooy ma ni la ah ndooy kat li ma bëgg a def loo man danga maa xamee ci toog naan man lu ma siq doomu aadama sama digganteeg moom lay yem man bi ma dalee doon Pape Mbaye ba tey ku ne nag génn na ma góor jigéen kenn du mus a taxaw ne kii mooy faru Pape Mbaye kenn du ne maa ko bett ak góor kenn du ne maa gis Pape Mbaye ànd góor sama góor jigéen dégg rek la ci nit ñi am kenn amu ci seede ku am seede génn ko réseaux sociaux lañ ne ku am seede génneel neen mbar farum pambaay ngi nii kii la mbaaya di làngal wala kenn kenn mbaaya du am man lu ma séq doomu aadama sama digganteeg yow la yam bu ñu àndoon rey ni sax dama koy kii keroog ba ñu taxawee diggu dikk ñu jàpp ñu ma nekk xale bu ndaw am di ans ñu may coow télé yeeg journal yeeg rajo yi coow Assane Ndoye daa jàkkaarloog man ne ma nee nañ xam nga turu góor jigéen ñi tudd leen ma ni leen tudd ma benn doomu aadama keroog kenn nelawul keroog kenn nelawul ñépp ku ne naan dina ma tudd ku ne naan dina ma wax ma ni duma ko def yàlla dafa bëgg ku di suturaal doomu aadama te ku suturaal doomu aadama yàlla suturaal la ma ni man maa ngi def loo xam ne tey bu ko yàlla woon ñi woon tey jii tey kenn du kenn du ma kenn jege waaye allah ngi ma koy nëbbal di ma suturaal di ma teral kon doomu aadama yi nga xam ne dañoo yor seen vie personnelle dama leen koy nëbbal dama leen koy suturaal Assane Ndoye taxaw ne ma waxal ñu tiim ma ak ay fital tiim ma ak ay maas tiim ma ak ay courant ma ne duma ko wax Assane Ndoye dafa tourné commissaire de la DIC nday seetaan vidéo bi dafa tourné daal ne ma musumaa gis nit ku baax ku mel ni yow ma ne ko ndax la mu ma fii ku fi mës ñëw rek buñ la dóoree gaañ la di nga wax ba wax lu amul ma ne ko man duma ko def mu ne ma ku am sutura nga yow ku baax nga yàlla na la yàlla suturaal ñaanam googu mu ma ñaanal vendredi lañ ñu jàpp ci guddi déedéet astafirullah samedi lañ ñu jàpp ci guddi dimaas lëndi nit ñi foog ne dañuy rek ñu xëy waaw ñu xëy ñu bàyyi ñu ba pare yëkkati alal ju bari teg ko ci suñuy loxo Sénégal di toj ñu naan li tax ñu bàyyi leen xam nga li tax ñu bàyyi ñu sutura gëma suturaal doomu aadama yi bu ma neexoon toog ne ah problème bi am na diig naa xaaral ma diigal ñëpp waaye diigaluma benn doomu aadama damaa jël lépp tabar fakal la macha allah xam ne ay sos la ay fen la ma ne du ma tudd doomu aadama benn doomu aadama di yàq ay famille ndax wat goes around comes around loo def jëmale ko ci doomu aadama ba lu teng doon danaan newaat tàng ñëwaat ci yow ma ne duma ko def gis nga sutura gëma suturaaloon doomu aadama yi ci 2008 loolu la ma yàlla fayee ma génn ca police ba doyatul yàlla indi américain yi man dong maa doon sénégalais bu dugg Amérique ñu jëlee la senegaal américain yi ñëw ba Sénégal jëlee la fa te dugguma ambassade wutuma visa fayuma billet joxewuma un franc waaw joxewuma un franc ñu jëlee ma Sénégal jaarale ma salon d'honneur fi président bi di jaar konte ay millions yu bari jox ma ma wàcc Gana ñu jox ma sama green card li ñëpp di wër ma dugg États-Unis américain yi dëkkal ma di fay sama kër di ma jox salaire par weer di ma teral di ma siggil xam nga lu ma ko may keroog ba ma taxawee ca dikk mété yi tiim ma bombardé yi tiim ma lacrymogène yi courant yi ma mënoon a tiitaraf ñu naan ma waxal tuddal kilifa yi te bu ma tuddoon àdduna yëngu waaye ma ko dama ne dama leen di suturaal ndax yàlla dafa bëgg kuy suturaal doomu aadama ma suturaal ñëpp bi ma génnee kilifa yëpp dañoo jël seen téléphone di ma ñaan ne ma munoon ngaa to munoon nga ñoo toroxal munoon nga maa lim munoon nga maa nangam ma bañ ñu ne ma ni nga ñu suturaalee yàlla na la yàlla suturaal ñaan googu dal ma ma ñëw Amérique gi yàlla di ma teral di ma suturaal ndoy nga ni doo bàyyi wax jooju woo ma téléphone naan ma da nga bëgg ma jox la turu góor jigéen yi waaw ndoy nga ni doo bàyyi wax jooju ajaa diggéen jële la ca rajo ba indi la ci tele bi teg la tabaar la nga bëgg buzz ndax ku bëgg buzz Sénégal mbaa nga bëgg siiw góor jigéen yi ngay tudd ndax ñooy maye buzz ñooy maye ñooy maye succès waaw nga woo ma noonu naan ma mbaaye limal ma góor jigéen yi ma limal la ndooy yaay pee yaa daan dem chez Iba yaa daan dem chez Ancho di ànd ak Modou Fall di ànd ak Aïcha di ñëw toog di wër di dajale góor jigéen yeeg caga ji di leen indi ñuy toog ngay def bii di def bii di def bii yow ndooy waaw kon boo nee dangay ngay wareef mbaa dangay xalaas di ma woo yàpp ma nag am audace ndax yàpp ma weesuwul nga fekk ma may ambiance ak amba boot di bëggal sama bopp nga naan ma jox ma turi góor jigéen yi ndoy baan ku yabaate nga ndoy baan ku yabaate nga waaw ndoy baan ku yabaate nga ndoy baan ku yabaate nga ku yabaate nga ndax xaw ma man loo ma yabee man VIP bii man mbaayi star bu mag bii ba di ma woo naan ma jox ma turu góor jigéen ndoy baan dangaa bëgg turu góor jigéen xool ko ci sa bopp xool ko ña jege bés bu ne nga làng ay góor jigéen ndax góor jigéen ay xam moroomu góor jigéenam te yow xam nga ne li ma lay wax duma la ko sasul mukk dama seet kilifa yi may seetaan ndax sama sinaat bi kilifa yee may seetaan waaw ñun ñu baax ni kilifa yee may seetaan bu ñu gisee ni mbaay génn na bu ñu toogee seeni taalu taalibe sax dañ naan indil leen ma Sénat bu ñu jàkkaarloog moom may jokkoog ñoom ndax man ñun ñu baax ñi may wër barki dem bi ma souhaité kumba di ba happy birthday ba nit ñu baax ñi ak artistes yi génnee ku ne def sa vidéo dañ ma ne mbaay naka te xam nga ñi man leen mu yéem man mii man ñi ma xam ñii ci gën a tuuti bu du woon kilifa yi may seetaan ndooyi dinaa wax loo xam ne tey jii Maribane tey bu nee salaamaaleykum sa boo nee salaamaaleykum kër ga loolu lay njëkk a xam ne wax naa dëgg yow lay njëkk a vérifié waaye dama koo yërëm moom Maribane ndax man dama xamul mari naka la mën a tiimeeg jongamaayam ci ak Maribane oh ay waay Maribane xanaa bu guddi jotee bu ndooy baan yéegee sa kaw da ngay jël njege naay dëpp ko ci sa kanam gi laa ilaaha illallaah moo mari xanaa dangay ngay fay lamp bi baan si mee ko ay mari baan xanaa bu ndooy baan yéegee sa kaw da ngay dëpp jege ñaay doo ko xool ndooy baan ndooy baan di nga baray na xale yu jigéen yi estati góor jigéen yi da bëgg ku la estati yow tey lañ lay estati dootoo ko defati <laughs> sinaab bii nga xam ne deux mille naka deux cent mille views laay am par jour di am cinquante mille estati screenshot yow du nee nga bu ñu estati góor jigéen ñi nañ lay estati yow tey lañ lay estati tey ba nga saf sap tey lañ lay tiktok <laughs> ndoy tey ngay dem ci tiktok yi tey ngay dem ci instagram yi tey ngay dem ci whatsapp yi tey lay du nga da ngay wareef da ngay xalaas yow rek xalaas nga ndoy baan yow rek tem nga ndoy baan yow rek wareef nga